Eh, nekk ci loxoy daayira muqaddamatul xidma ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu siwaat nañu ak yéen ci jataayu xam-xam yi ñu baaxoo def di ko ànd ak yéen ngir laabiréer ci mbokki jullit yi waaye tam nafar ci fàttaliku ci suñu mbirum diine tey jii nag di benn ci jataay yooyu mun nañ ne di jataay bu am solo boo xam ne warees na fee mën a jële njariñ warees na fee mën a nafare bind yu bari muy jataay boo xam ne dafa jëm ci wàllu diine ak suñu wàllu nekkin muy suñu wàllu dundin muy lu jëm ci wàllu fas ab sëy tey moom lañ fas yéene waxtaane yaakaar naa ku ne fas ab sëy nag tudd nga diine waaye tudd nga itam nekkinu doomu aadama ndax mooy li nga xam ne mooy tax doomu aadama di man di yokku di man di am production bu bari ngir mën a taxawu ci dund gi tey suñu jotaayu tey loolu lañ bëgg a waxtaane waaye bëgg cee waxtaan itam tomb boo xam ne bu mat a leeral la mm, ab sëy ni ko charia séqe ak wàllu addina loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane seex ko itam nag ay kilifa ay boromi xam-xam ñoo xam ne kuñ ci tudd dañ xam ne seen taxawaay ci fànn gi ñuy waxtaane lu lu fés la bokk na ci jataay bi ñi fi teew di sëriñ imaam sëriñ Mbacke Abdourahman di borom xam-xam di faqih di gëstukat bokk ci membre yi daayira muxaddamatul xidma waaye bokk ci membre yi daairatu rawdu rayahin di kuréel gu mag googu nga xam ne cheikh Mouhamadul Muntaqa Eh, yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te may ko wér ñoom la dénk lépp lu aju ci xam-xam ci biir dëkk bi sëriñ Mbacke Abdourahman moomu bëgg nañoo séq ak moom jataay bi incha allah waaye itam fas yéene koo séq ak itam sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno sëriñ Abdoul sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno di président commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma lépp lu aju ci xam-xam ci biir daayira Muxaddamatul Xidma moom lañ ko dénk mu koy saytu mbooleem waxtaan yi ñu fiy def mboolem yi ñuy bind ak lépp lu aju ci xam-xam ci seen loxo la nekk moom itam teew na fi teewal fi daayira muxaddamatul xidma gi yépp ñoom itam ñu am ci pàcc bu rëy ci li ñu war a waxtaane luñ ci war a leeral kon loolu mooy teewaayu sëñ bu Lahad Bousso Thierno moom waaye itam mu teew fii itam kilifa gu mag goo xam ne buñ ko tuddee danañ xam ne ab teewaayam ci tomb bii ñuy waxtaane mën te ñàkk faw mu addu ci muy président Serigne Ñaan Serigne Cheikh Ñaan président Serigne Cheikh Ñaan mooy président tribunal départemental bu Mbacké euh, moom teew na ci jataay bi fas yéene ci àddu itam yaakaar naa ne ku tudd ab sëy da nga tudd li ñuy wax euh, état civil te état civil ku ko tudd itam da nga tudd wàllu yoon kon moom moo fi teew ngir leeral lépp loo xam ne aju na ci wàllu yoon ci wàllu sëy ni ko yoon tërale ak yan matukaay lañ ci mën a jël incha allahu taala dina ko leeral waaye mu teew ci jataay bi nag ngir gunge ñu ci rek ngir man ñoo taaralal jataay bi man ñoo wettali ci jataay bi imaam Serigne Abdul Xaadir Mbàkke moom Serigne Mahmoudan moom teewal fi imaam yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ndax itam ku tudd sëy ci diine da nga tudd imaam wala kilifa gi nga xamante ni mooy daganal diggante boobu kon ñooñu ñoo ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ñu fas yéene séq ak ñoom waxtaan euh, dinañ buñ la gannaaw buñ leen joxee ñu nuyoo ba noppi ci la ñuy doog nag tab bi ci jataay bi kon damay jëkk a jox rek euh, al imam Serigne Mbacke Abdourahman mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci jotaay bi imaam ñu ngi lay nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Abdullahi maa ngi lay delloo nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo seq jataay bi yëpp. di nuyu mbokk yi nga xam ne it ñañ ñi bàyyi xel ci jataay xam-xam bi noonu nga ko waxee muy jotaay boo xam ne am na yaakaar ci ne danañu amal njëriñ ñun ñëpp ñaan yàlla dafa ci tawféex daf ci taysiir ba liñ ci yéene ñu am ko ci jërëjëf. jërëjëf imaam ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni moom la nuyoo jërëjëf ñu jox euh, Serigne Cheikh ñaan président Serigne Cheikh ñaan moom itam ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Jumaay Touba di la nuyu di la jox kàddu gi nga nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Euh, ñu ngi sant yàlla di sant sëriñ bu baax ci teewaay gi ñu teew fii. Euh, di leen delloo am nuyoo. gën gaa rafet di sant it ci invitation bi ngeen ñu invité di ñaan yàlla yit li ngeen di xaar ci ñun ci wàllu leeral ci wàllu li ngeen ñu bëgg a laaj yàlla kàttanul ba ñu man man cee leeral li ngeen li ngeen soxla yëpp di kontaan bu baax bokk ak jataay bi kilifa yu tedd yi ngeen tudd buñ ci tuddee sëñ Mbàkke Abdourahmane day daal di doy sëkk donc ñoo ngi leen dellawaat euh, antenne bi ak micro bi Euh, di xaar laaj yi jërëjëf. ok jërëjëf président ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax macha allah waaye itam di jox kàddu gi sëriñ bu Bousso Thierno mu nuyoo moom mi nga xamante ni moom moo fi teew président commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma mu teewal fi daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdoulaye asalaamualeykum. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seqal jataay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax. te di leen siyaara te di leen ndokkeel di am mbégte bu baax a baax ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne war nañ koo def di nuyu al imaam sa sëriñ Mbacke Abdourahman di nuyu euh, sëriñ Abdul Xaadir Mbacke mu sëriñ Mahmoudan di imaam moom it teewal fi imaam yi dëkk bi yëpp mën nañ ko wax di nuyu président sëriñ Cheikh Ñaan mi nga xam ne tamit euh, liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la daayira Muqaddamatul Xidma di taxawee moo ñu ciy gunge moo ko jëmmal Euh, ci ci taxawaay bu am am solo kon sëñ Ablaye lay delloo jërëjëf sëñ Abdou Lahad ci nuyoo bu am solo boobu nga jox mbokki téléspectateurs yi waaye mu dab suñu ci jataay bi nag sëriñ Abdou bu Bousso maam Asta mi nga xam ne moo jiite commission sociale ak relation extérieure bu daayira Muxaddamatul Xidma comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi imaam Serigne Mbacke ci yow laay doore ku ne ab sëy ci lislaam ku ne ab sëy da tudd charia bu dee ay julit lañ danañu interpeller charia mm-hmm. lan la charia wax ci sëy ndax suñu borom subhaanahu wa taala kat moo wax ci alquranul karim ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma kon dafa mel ne suñu borom moo daganal ab sëy ci diggante góor ak jigéen mm-hmm. waaye nag bi lim koy daganal yépp nag am am na solo sum am waaye nag am na ay cëslaay yoo xamante ni ci la sëy bi war a tegu kon suñu laaj bu njëkk mooy ban importance la sëy am ci chariatul islam yi euh, jërëjëf sëriñ Abdoulahi ñu ngi leen nuyu di nuyu kilifa yi ñu seqal jotaay bi yëpp laaj bu am solo la sëy ndigalu yàlla la loolu rek doy na ci am solo suñu boom lépp lu mu santaane sant ko jaam ñu lu am njëriñ la ci ñoom buñ ko xamee ak buñ ko umpalee moo santaane ñuy dencante mhm. am na ñetti njariñ yu fees yuñ ci mën a bàyyi xel bu njëkk bi mooy dafa santaane dencante ngir fegu mhm. ndax jaam bi am na yëg-yëg bu muy am boo xam ne mhm. dana ko bëgg a faj sunu borom ubbil ko bunt boo xam ne mën na ko caa faj te du tooñ kenn du ci jële lon muy buntub sëy ñaareel ba sunu borom bëgg xeet wi di yokk ci bunt bi mu ko wutal fenn benn bunt la muy buntub sëy kenn nit la bindoon muy aadama bind ci moom xawaa sant leen ñu ànd ñiñ jur mu sant leen ñu jaxasoo ay njaboot di ci soqi ko bu kere muy yàlla bu neexoon yàlla kenn ku ne bindal la boppam ni daf malaaka yi waaye ci doomu aadama yi moom daa bëgg ñu ñenn ñi di jóge ci ñenn ñi yoon nag la ci ubbi bu yoonu sëy weneen wudul sëy rek daganul kon am na solo ndax mooy wenn yoon wi mën a jaar ngir xeet di yokku ba kere muy soob yàlla am na njariñ lool ndax bunt boobu moo des ci bunt yi bu njëkkoon dañ daa wax ay moomeel waaye léegi fi ni nii benn bunt ngir nit ñi yokku nit ñi yëg-yëg bi ñuy am ci góor aajowoo gi ajo woo jigéen jigéen di aajowoo góor benn yoon lañ am ngir fa ngir faj ci anam gu tegu ci yoon muy buntu sëy mm-hmm. yoon wu lu yor rek day daal dugg ci eh, ak jalgate mm-hmm. kon loolu sëriñ Abdoulaye day wane ne mm-hmm. am na solo ndigalul yàlla la te lu yàlla digle lu am njariñ la am na solo ndax moo tax nit ñi man di yokk ndax ci yokku nit ñi ci la fi àdduna yi dese yàllaa fi wàcc nit ñi bëgg ñu dundal suuf si fi nit ñi suuf dootu dund ci woonuwu la fi xal teg ko fi nit doomu aadama it ay yëg-yëg muy xiife di mare noonu la góor di aajowoo jigéen jigéen di ko aajowoo góor yàlla ubbi bunt boobu ne yoon wu dagaan la woo xam ne da ngeen koy def ba noppi seen aajo faju ci ngeen am ci tuyaab mm. wàcc yoon woo nag am bakka kon am na solo sëñ al sëñ ko doon tënk ngir ñett yooyu mhm. allah kon jàpp naa ne leer na ñuy déglu xam nañ ne importance bi sëy am mën nañ koo tënk ci ñett yooyu. Mhm. bi ci njëkk ni nga ko waxee ndigalul yàlla la. Mhm. loo xam ne suñu borom moo ko santaane ñu war koo def beneen bi ci topp mooy mooy tax doomu aadama yi di yokk ci kaw suuf mën koo dundal. beneen bi ci des mooy euh, yëg-yëg bi nga xamante ni mooy yëg-yëgu bànneex ci yoon wu dagan ngir man koo def moo tax suñu borom rëdd rëdd woowu léegi nag bi mu bi mu amee importance boobu ba suñu borom santaane ko bi mu ko santaane jàpp naa ne wutal na ko ay charte wutal na ko ay arkaan maanaam ay cëslaay cëslaay yooyu yan la waaw bu dee sëy euh, ci masab Malik bi ñu nekk nag la ñuy wax ñetti ponk laam yoo xam ne bu benn manqué sëy amut bi ci njëkk mooy sëy day am kilifa jigéen ji tax ñuy wax nag ci lislaam jigéen du maye boppam waaye kilifa koy maye te kilifa dafa am ay charte yu ca nekk bu fekkee ne ab julit lañuy ñuy takk ki maye na doon jullit ne moom na doon mu kàllaf gone du maye ku yaramam naqari du maye na doon mu kàllaf bu mu doon ku nekk armal di aj wala umra xaala boobu ku ci toll dañuy tere ci lislaam ngay fas ab sëy kon kilifa jigéen ju ñu maye ju ne ak nu mu mën a toll moo xam mas naa dem kër mës dem kër am nay doom amu doom faw am na kilifa gu koy maye goo xam ne ab jullit lay doon góor lay doon te mag lay doon ànd ak sagoom te it bu mu nekk di ko armal di aj mbaa muy umra loolu jàpp naa ne lu bàyyi xel waaye nag loolu jigéen tax ñuy wax waaye góor moom sartuñ ci moom kilifa mën naa dem ñaanal boppam mën naa yebal ku ko neex même jigéen sax mën naa dem nangu ji ñuy may nit soxna mu yebal ab jigéenam jigéen bi dem nangul waaye li mënta nekk mooy jigéen di fasal di fas di fasal ab sëy ku jigéen saa bu ñuy fas ab sëy moom ki koy fas ci lislaam dañuy wax ne góor lay doon kon loolu it lu ma ta xam la ñu xamee ci ne kon yóbbu ay islaam moo waxoon ni ab sëy du te wali yu amul euh, wali bi it jullit lay doon bu fekkee ne ki ñi maye jullit la bu fekkee nag ki ñi maye du julit ni ki nga xam ne lislaam daganal na nit takk ab juif daganal mu takk ab chrétien waaye ka koy may bu baax na doon ku mbokkal diine ki lislaam nit ñu bokkut diine ab julit mënta yilif ku mbokkalu diine mm-hmm. ci wàllu sëy kon ñooñu ku leen takki da ngay dem ci seen seeni bokk wala seeni diine ñooñ ñu may la ko mm-hmm. suñ la ko may dana baax nag waaye ñoom ñoo ko war a maye waaye bu dee julit la donte ay way juróom yéefar lañ julit bee koy may waaye yéefar mënut mm-hmm. ci moom kon euh, ponk bi njëkk sëñ Abdoulaye mooy kilifa mooy maye bu dee jigéen la ñuy maye hmm. kon bu kenn wax ne jigéen ñi mas naa dem kër wala am nay doom kon léegi kilifa boppam la amul fenn ci àdduna ci lislaam fu jigéen di yilifu boppam ci pour may maye boppam dañ cee sart ay sart wali dañ ne day nekk xaas di nekk am wali yu xaas mooy na nekk mbokkam bu ñuy toftalee ñi gën a yay ci maye doom la ñuy jiital hmm. nit bu xasee am doom ba doom ji doon mag bu ñuy maye yaayam doom ji moo gën a yee ci maye ko mm-hmm. teg ci sët teg ca bàyyi noonu lañ koy toppee ci gën a jege ci mbokk yi ay ba mbokk ay frère ay ay ay baayam yu ndaw bu ñooñu jeexee ñu xool bu fekkee ne am na ku ko yoroon maanaam ay waajur nekkuñ fi waaye am na kuñ ko dénkoon ba mu doonee xale ba mu màgg mu yor ko mm-hmm. kooku mën na ko maye bu loolu amul nag ñi dem ci yoon kilifteef noonu lay demee mm-hmm. kon faaw ay mbokkam ne fi wala kuñ ko ma a dénk mu yor ko wala ndem yoon may mhm. loolu mooy li ñuy tuddee wilaya xas wilaya ma nag mooy mu dem ci jàkka ji wala mu dajeeg ay dëkkandoom gis kenn ne ko mayam mhm. loolu jigéen joo xam ne te amu fi menn mbokk dëkk bi mu nekk it tribunal amu fi mhm. fu ñu àtte nekku fi kooku sañ naa dem dem ci jàkka ji ne man kat dama bëgg borom kër wax ay mbiram ñu laaj koy bokkam kenn néewu fi amu fi man naa doon koy door a tuub nga xam moom dong moo tuub ci ay mbokkam kooku amu fi amu fi bokk ci dëkk bi yoon wuy maye néewu fi kon bu demee ci jàkk jàkk ji na ko maye loolu la ñuy tuddee wilaaya am nga xam ne julit bu mu dajal rek waaye na fekk nag jullit ba doon góor nekk mu kàllaf sart yi ñu waxoon ci wóli yu daje daje ci moom su boobu mën na ko maye loolu mooy sart bu njëkk sëñ uh, Abdoulaye uh, ci ci ci ci ci ci ci ponk sëy bi ci des mooy uh, li ñuy tuddee ki ñuy maye ak ki ñuy may may maanaam bu ñuy fas ab sëy góor ak jigéen la ñuy fas. Mm-hmm. dañ cee sart kenn ki na doon góor mu leer ne góor la. bu mm-hmm. wér amul lu mu sikk sàkk kenn ki it na leer na jigéen deesul maye ñaari jigéen deesul maye ñaari góor ci lislaam deesul maye nguli ngaana goo xam ne xamuñ góor la wala jigéen. Mm-hmm. waaye bu ñu maye daa war leer na kii takk góor la goo xam ne mu xàqaqu zukura am na lu wér ci de góor la jigéen ji ñu maye leer na ne jigéen ñaar ñuñu la lislaam santaane maye beneen pas-pas bu ñu fas bu yooyu du pas-pas ci lislaam kon mënta wér benn beneen pas-pas euh, foofu dañuy sart ci jigéen jooju ay sart yoo xam ne ngir ñu man ko maye ci lislaam mu wér di ci jiitu bu mu nekk ci bu mu sëy jigéen ju di ci sëy tasagut kuñ ko mën a may soxna si jaamul lañ la may buñ ko fasee it fasu ñu bàyyi xel foofu it ab sëy ci lislaam boroom kër moo koy dindi wala hmm. yoon borom kër mooy fase ndaw si iddaw bay dañuy yàqu wala borom kër fasewut wala ngir ngànt wala lu mën a xew sañ naa dem ci yoon bu yoon gëstoo ba xam ne fase jaadu mu fase ko bu lànkee mu forcé ko su boobaa day wéy ñaari ñooñu dong nag ñee mën a fas tas ab say loolu yonent alayhi salaam am na ci jamono yi jamono yonent alayhi salaam koo xam ne am moomeel la ab sangam da ko may soxna mere ko tas soxna sa mu dem jàmbar ki yonent alayhi salaam mu ne ko sëñu ko innama talaaqu li man yaxudu bi saaq ci la waxee woon wax ju solo jooju ne boroom kër moo sañ a fase ak ki ko wuutu te mooy yoon kon loolu moo tax am léeg-léeg mer am naqar de am way jur wala ku mel ne moom daal rek ne maa defoon sëy bi dindi naa ko wolof day wax lu am solo sëy ko takk tasu ko wax na dëgg ci lislaam sëy li ko takk tasu ko ndax euh, wëli koy tas moo koy takk waaye mënu ko tas kon loolu mën na bàyyi xel kon jigéen di Euh, bu mu doon jigéen joo xam daana bu mu doon jigéen joo xam ne it dafa feebar ku feebar kenn lu may feebar boo xam ne amuñ yaakaar ci ne dana wér bu doon jigéen joo xam daane ci idda borom këram da ko wàccoon mu iddaw idda ji jeexagul moo xam borom këram faatu wala ñu fase ko bu mu doon sax koo xam ne dañ koo siifoon ñu da ko laablu seetagul yooyu yëpp kenn du ci may kon jigéen suñ ko may day fekk ñu mu set bi maanaam lenn luy nuru gàllankoor daal lu charia tere nekku ci moom bu mu doon ko armal di aj wala umra ñooñu kenn du leen mayee ci lislaam euh, yooyu it jàpp naa ne lu mat di suuraale ndax léegi-léegi it euh, ñiy fas di laaj yu mel noonu baax na ci bu mu doon jigéen joo xam ne it waa ji dafa mas dafa moom li ñuy wax liaan masal ñu waatoo mu tuumaal ko njaaloo ñu dem waat rëbbonte ñooñu seen diggante day aramu faw bu mu doon koo xam ne it borom këram da koo fase ñett yoon dootu ko mën a tëkkaat lii fii ak li ba wax ban de sëy amul mm. maanaam ndaw si sëyi feneen mm. ba tasaat iddaam jeex mu door ko mën a tëkkaat waaye lu ñu mën a wax ñetteel fas xasee tab bi moom bu ko fasaatee it fa suuf loolu dana bàyyi xel léeg-léeg ñu fase fase ñetteel lay yu ne lañ lay laal naan idda ji jeexagut ak see rek na xam ne sëy yooyu du ci sart eh, fase yooyu du ci sart mm. yow ak sa borom boo waxee ne fase ko rek lislaam dañu jàpp ne tas eh, loolu lenn la ci sart yooyu mat bàyyi xel foofu bu dee góor gi it sart nañ ci góor gi sart nañ ci na doon góor goo xam ne moom itam feebaru feebar kenn du ko may soxna mm-hmm. armalut aj wala umra ñooñu kenn du soxna bu mu yor lu ëpp ñeenti soxna ku yor lu ëpp ñeenti soxna boo ko fase fa fasu yu mel noonu it yu met war di laaj la jataay bu doon koo xam ne it dañoo aramante ngir mbokk wala dañoo aramante ngiru askan eh, ngir ngir ngir ak le wala dañoo araamante ngir nàmpandoo nit dana ko araam bu faw ci yu mel noonu ngeen bokk masalan tey nit képp koo xam ne euh, daa soqi ko ci yow araam na la bu faw koo xam ne euh, sa la mhm. wala sa mag képp ku soqi koo ci moom araam na la wala sa baay wala sa yaay képp ku soqi ci moom kon nit ab jarbaatam ay sëtam yëpp day araam yooyu nag dañ ciy xaajale wolof yi dana na mu ne diw sama jarbaat te fekk daa bokk ak bàyyam si mook baay yaayam seeni ndeye bokk uh-huh. waxuñ loolu li ñuy wax direct la ñuy wax jigéen di xam ne da ngaan moom daal ñoo bokk ndey wala ñoo bokk baay wala ñoo bokk ñaari yëpp lépp lu soxi ko ci moom aram na la ba faw yooyu jar nañ bàyyi ko xel di ko laaj kon yooyu mel na ne mooy sàrt yi ñu sàrt ci góor gi ñu may it nañ gëstu yooyu bu mu doon koo xam ne dafa tële tële yor kër yow de daa waxoon ne yéen ndaw ñi ku ci man baa a Mm. mooy mën a yor kër na samp mm. Mm. ku mënut na bari lu muy woor kon it waxuñ koo xam ne du mën a yor kër li yor kër laaj mënu ci dara ba muy dugg ci takkum soxla ndax day lore te lislaam day wax ne la darara wala dira mm-hmm. lislaam nangu kenn kenn lorente kon foofu it day mat bàyyi xel baax a baax loolu mooy ñaareelu sart bi kon ñaareelu ponk bi kon mooy e, fi ñuy fas mooy góor ak jigéen ñi ñuy fas ak kilifa ñetteel bi mooy baat yi teg tegtale ne sëy am na kàddu yi lu am solo la ci lislaam mm. lu lu mat a bàyyi xel la ab sëy kàddoo koy fas moo koy fecc bàyyi xel loolu saa bu wali yu jigéen ji ne may naa la soxna góor gi ne nangu naa wala ki ko teewal ne nangul naa ko sëy fasul ci lislaam foofu it dañuy wax ne kaf jëmu ci mm. yenn kenn du kafe may ma doom ji mun la may naa la ko sëy bu fasul te ab sëy bu fasoo li ci doy war mooy bu fasu woon nga nga fecc ko ci saasa it genn wàllu ci war la ndax saa bu mayee nit soxna mu nongu ca saasa jigéen ja moom xaaju ceram bu ko fasee ca saasa dana ko jox genn wàllu cen bu ñu wéetee mu door ko fase war ko jox cen gu mag kon yooyu eh, mat mat mat mat lu mat di moytu la di ko jéem a kafe ak yu mel noonu eh, sëy kaf jëmu ci moo ko fase kaf jëmu ci moom jidduhu jidd wa hazluhu jidd loolu la yuntu ay sala waxoon Mm. kafam dëgg la dë euh, dëggam dëgg la mm. kon euh, baat bi tegtale ab sëy mooy may naa la ki koy def mooy kilifa jigéen ñi mbaa ki ko teewal ak nangu naa loolu borom kër bee koy def mbaa ki ko teewal ñaari baat yooyu dañuy bëgg ñu sësaloo bu kenn may naa bu noppee rek sant yàlla ji ci yonent bi mu daal di nangu naa say façon mbooleem yi ñuy def di ko jiital xutba yaak ñaan yëpp yu baax la nag waaye fii ak waxaguñ fasal naa la kenn nongu naa say faso kon jàng fatiha yu ñaan alxuraan ci jàng yëpp lu ñuy barkeeloo la ngir sëy barkeel waaye nañ xam ne lii fas ab say mooy ijaab ak qabul mhm. fasal naa la mu ne nangu naa mota bàyyi xel foofu it léeg-léeg nit ne fasal jekki-jekki nit ñëw fu ñu ne fasal nañ ko soxna baayam daal ne fasal may naa ko soxna ñu woo waaji wax ko mu ne man loolu anduma ci sëy fa ndax bu fekkee yëg na ko ci saas daal di nangu ci saasa mu daal di ak teewam fa du ci sart waaye buñ nee may nañ ko soxna wu kenn waxu ko ko nañ jàpp ne fas sey amagut ndax sëy ñaari pàcc yi la may la ak nangu kon may am na waaye waa ji yëgul ba nangu loolu jar na bàyyi xel ci bu ñuy fas ay sëy léeg-léeg dana faral di am kon loolu mooy ñetti ponk yi nga xam ne ëpp sëy mënu ci ñàkk sëy bu amul waliyu sëy amut mm-hmm. ñaar ñi ñuy wax muy góor gi jigéen ñi benn sart manqué sey amut ñaari baat yi ñuy wax may naa la nangu naa bu amut sëy amut mu des ñaari sart yoo xam ne moom bu amut it sëy bi dana wér waaye nag góor gi du sañ a ak soxna si te sart yooyu ñëwul benn bi mooy tudd cen xanaa bu ñuy fas mën nañu wax rek ni cel noonu duñu wax cen waaye nag balañ koo jébbal soxna si danañu wax ne cen gi nangam la du sart nag joxe ko moom waaye nañ ko tudd waaye nañ joxe dale bi ñu ko joxe it nag ndax bor la boo xam ne te bor daa waram tele kon buñ nee dana ko jox canaaw nangam nañu wax ne kañ bu fekkee dañu avance ñu joxe liñ avance ñu ne des wi danañ ko joxe balaa nangam hmm. kon dañ ko war a bind mu leer can na ki masab Maalik li gën a néew mooy rubu dinaar mooy benn gramme or un virgule six cent vingt cinq gramme ci or or bi ñuy wax nag vingt quatre carats lay doon kon jamono ju ne ak dëkk bu ne lu mën jar lool rek mooy li gën a néew ngir fas ab sëy saa bu amee rek say bu kenn nit ñu bàyyi xel ne du lu ñuy mayee kenn suñu ko maye ndax àq yàlla da ci nekk nit ki mën naa maye alalam mën naa maye waaye nag li tudd can gi dëgg-dëgg muy aqalu sadaaxum mu ni su ko maye kon faaw góor gi joxe ko wala ñu joxeel ko ko say dor mën a wér it ñu bàyyi ko xel sart boobu kon bu ñuy fas sëy mën nañ ko bañ tuddaale waaye wéet du am te tudduñ tudduñ kenn buñ ko xasee tudd nag mën naa doon lu mu teewal mën naa doon bor mën naa teewal leen li leen li bor waaye nag la ca doon bor nañ wut nañ wax kañ lay doon kañ lañ koy fay beneen charte bi muy ay seere moom it charte la ci sey bi jokkoo mën a am mën nañoo fas ab sëy te kenn du ko fekk waaye bala bala ñoo wéet ñoom ñaar ñi ñiñ mayante nañ wut ay seere yu saxal ne bis sàngam ci heure sàngam may nañ diw diw loolu bu ci amut boobu sëy baaxul seere nag ay nit lañ koy def nii ci jamono yit aw këyit li ñuy tudde certificat de mariage seere la kon buñ bindee certificat bi saxal ne diw sangam sangam ñaare sax dañ cey defaale ña ko ña ko seere mm-hmm. loolu luy dëgëral bu jafe-jafe amoon ci sëy ndax takkoon na ko tëkku ko kayit woowu dañ ci islam da cey sukkandiku kon lu am solo la ci wet googu ndax seere lay doon yooyu moom du sart ci fas sëy bi waaye buñ fasee ba noppi nag bala ñoo jox bàyyi leen ñoom ñaar ñuy wéet nañ nañ wuti seer yooyu mm-hmm. kon mën nañoo fas ci saasa wut certificat mariage man nañoo fas wuti seere ginnaaw ba ñu wuti certificat de mariage sukkandiku ci seere yooyu waxoon waaye moom ab sëy duñu duñu sëy wéet moom te loolu amul waaye nag mën nañ ko fas te du amagut loolu daal ñaari sart la yoo xam ne sartu sixa la ñuy tuddee mhm. bu ñett yële nag moom ay arkaan lañ mooy sëy du am moom te amul bu ci benn manqué sëy amul loolu daal ci tënk sëy Abdoulaye man nañ ko wax ci ne waaw macha allah euh, macha allah exposé bi macha allah suñ euh, imam euh, rafet na ni nga leerale arkaan yi muy ponk yi muy euh, waali wali kilifa gi ta ñàkk ci sëy bi sëy bi tam sart yiñ sartal ci ku góor gi ak ku jigéen ki itam yooyu itam munu caa munu caa ñàkk waaye itam nangu gi xabul bi may naa la nangu naa loolu itam mun ta ñàkk mu amaat yeneen sart yi nga yi tuddaat léegi muy sart yi tax nag sëy ba mën a wér yee moom sart yi tax ñu mën a fas sëy bi la waaye bu buñ ko fasee par sart yi tax mu mën a wér muy can cangeeg seede yi loolu itam lu am solo loo xam ne euh, leeral waaye euh, imaam Serigne Mbacke Abdourahmane ndax question yi kilifa gi nga xamante ni imaam wala kilifa gi nga xamante ni mooy fas sëy bi doonut yoo xam ne jamono bu nekk balaa fasub sëy war naa poser question yooyu. ah kay sëñ Abdoulahi loolu laa jàpp ne sax mooy li war a jiitu. nit lu muy def da ko war a xam. ginnaaw yow dañ laa dañ laa doyloo ba jàpp ne ci lislaam ngay def li nga def war na laa leer mooy benn muy ñoo xam ne xam nga leen. xam ne ñii war nañoo mën a ànd nga bool leen ndax li bari ci ñun suñu biir fii niñ jaxasoo uh-huh. léeg bu buñ leen fas loolu fekk na nga xam lépp waaye loo ci xamut war nga ko laaj uh-huh. léeg nga dégg njuumte am ñu ne diw dafa takk ab sëtam day am koo xam ne moom maaw ñu bokk benn baay ñàkk xam ñu daal koy fas ndekete waru ñoo ànd nit takk jar baatam ak surtout lu jëm ci wàllu nampano nii nga xam ne lu doy war la moom uh-huh. nit saa bu xasee nampal gone yaayama moom ñoom jur ñoo yem mm-hmm. yu mel noonu nag imaam jàpp naa ne war na mm-hmm. balaa fas sëy bi bu toogee laaj leen cheikh Mouhamadou Fadil moom sëñ Abdou Khadir xafisahullah mos na cee def këyit bu am solo mm-hmm. nga xam ne yëpp da ko bind ci ay wolof tasaare woon na ko ci barab yu bari nga xam ne eh, dañuy bëgg yow imaam boo ko timee dalay dimbale man ngay laaj par benn rek bu sart yëpp dajee nga laaj ñu tontu la yëpp waaw mën ngaa fas xam ne fasu na waaye boo laajee benn manqué nag daa war taxaw dimbali leen ñoo xam ne lii kat am na léeg-léeg pas-pas boo xam ne da nga koy faste fekk fasuut loolu amul njëriñ mhm. li njëriñ te saa yu sart yi manqué dañ lay wax ne la pas-pas la boo xam ne boo ko faste fasuut la cee lépp ak mooy yàlla lay doon mën a jur yeneen yeneen loo tax jar na di laaj bu baax di gëstu bala ñoo fas say mhm. kon mu gàtt-gàtt rek benn imam bu ku amut jot war naa wut benn équipe mhm. boo xam ne ñaar ñuy bëgg fasante bu dikkee dañ leen woo waaw yéen ñaar ñii lu ngeen bokk ak ndaw si mas naa sëy waaw kañ la kañ la koy gis ñu la ah, moom de mu tasee léegi xam ne mën na fukk fan ak juróom kooku boo ko mayee xam nga ne ci ci idda la nekk mm-hmm. te danse bi ci nekk nit kuñ mayee ci idda su borom kër jaxasoo moom dañ leen di tas te dootuñ sëy ba at ñuy tukki mm-hmm. loolu moo def beneen beneen xotooru la bu ci nekk nga xam ne moom liñ naan mu abadu tahrim dañ koy araam bu faaw te lépp lu koy sabab war na mën moytu mm-hmm. te eh, takk ku ne ci idda wala mu ne ci istibra di laablu loolu moo koy waral te yooyu yëpp jàpp naa ne imaam war naa mën a am jàkka yëpp sax nag am équipe yoo xam ne lu meloon lay lijjanti nga xam ne moom ku dikk rek da nga jaar ci ñoom ñu wër bi ba mu leer na ñii kat amuñ benn problème ñi nga xam moom xam nañ leen ngay gis ko xam ne xam nga ko Sëñ Abdou Khadir mu ñëw di fas da nga xam du fi indi du fas fii ñoo xam ci yoon waaye nag ñëpp yemuñ ñëpp xamuñ kon saa bu la leeree ne ñi ngay bëgg a maye amoo ci lu leer daal uh-huh. ngaa fas gëstu daal jàpp naa ne solo la sëñ Abdoulaye. macha allah waaye itam euh, am amut barab buñ ko war a fase xëy na jàkka dañoo miin sëy ci jàkka. Mm. ndax mënees na koo fase feneen fu dul jàkka. waaw jàkka sopp nañ ko ndax barke. Mm. xëy na nag li ma tam moytu mooy waxtaanee moom wari su ko def ci jàkka ji. Mm-hmm. pas-pas bi yàlla mooy su ko ci biir jàkk mm. dafa barkeel ak it mbooloo mu fay di seere di ñaan. waaye nag sëy fu ne lañ ko mën a fase ca biir kër gaak ca saal baak fu ne mën nañ fa fas sëy waaye nag dañoo sopp jàkk nax néegub yàlla ay jaam yàlla fay daja ñu am yaakaar ñoom buñ ci ñaane yàlla daf barke waaye waa nag bu dee am ay waxtaan ak ay sànnante kàddu gërëmante moom hmm. la gën mooy ñu génn jàkk ji moom wala ñuy séddale yi nga xam ne mbusoo ba yooyu lañ koy war a jox hmm. Hmm. yooyu génn jàkk ji defe ko ci bitti mooy gën waaye ci seede yooyu itam bëggoon naa ñu taxaw ci tuuti ndax léegi-léegi da ngay dem ci jàkk ñu fay fas ab sëy fekk nga fa doon julli tàkkusaan wala timis ñu daan ne leen dafa am ñu ñu fiy maye yow nga nga bokk ci seede yi ñëw toog ba jóg dem te xamoo ñu ñuy maye loolu tam ndax war a war a suuta siiwal ñu ñuy maye. waaw jàpp naa ne ñaar yëf war na am mbooloo mi nañ leen xamal ni diw sàngam la mm-hmm. may diw sàngam ñu dégg ko mm-hmm. tànn ci biir nag ñuñ xam mm-hmm. ne leen yéen yéenay seere seere yi seere yi farata yi nga xam ne bu problème amoon dañu di woo surtout bu fekkee dañ koy bind ci kër moom ñu bind ci seen i tur seen numéro d'identité nekk ci ñu xam ne ñii moom ñooy seere yi yu cosaan yi teewul nag mbooloo ma fa teew ñëpp ku ci xam bu ëllëgee boo nee man kat bi sangam teew naa ci jumaa ji ñu doon may diw diw fela mu fekk mm-hmm. fas nañ ko mm-hmm. loolu sariya da ciy sukkandiku mm-hmm. waaye nag xëy na comme ni mbooloo yi dajee fii doo xam ñëpp man naa am ñun la diw na la ñu maye te xam kooku bu ëllëgee mën ngeen dajee sax doo xam ne kii kii nga doon seere waaye nag na am ci mbooloo ma ñoo xam ne nañ leen nangul ne ñii ñoom ñooy seere yi bu fekkee dañuy bind aw kayit dana ci leer faaw ñu tànn ñaar wala ñett wala ñeenti nit bind seeni tur jël seeni seeni ñu xam ne ñoom ñii ñoo seere sëy boo liggéey luñ ciy lijjanti dañ leen di woo ñu mën ko lijjanti loolu jàpp naa lu ci am solo la waaye nag nañuy wax ci kaw li doy waar daal sëy Ibrahima mooy mhm. ab fasu sëy dañ ko jàppe dañ koy yelu daal yëpp mhm. dañuy mhm. déyante rek mu daal di génn mu jeex waaye nañ wax ca kaw diw sàngam lañ may diw yéen ñi fi nekk seere leen ko te ñaan yàlla daf ci barke lu ci am solo la macha allah macha allah jërëjëf imam Serigne naa ñiy seetaan tey jëriñu nañ bu baax a baax ci wàllu sëy ni ko chariatul islamiya rëdde rawatina ci masab Malik biñ nekk mbooleem ni nga xam ne noonu la ko rëdde sëriñ bi leeral nañu ko ak yi ci aju yépp kon xam naa damay jàll rek ci président Serigne Cheikh ñaan ci moom laa jëm si Serigne Mbacke tudd na fi aw kayit léegi mbirum kayit ku ko tudd nag da nga tudd état civil te danga nga tudd itam wàllu yoon yow yaa fi teewal euh, euh, wàllu yoon mooy président euh, tribunal départemental bu mbake Serigne Cheikh euh, gannaaw bi ñu la joxee kàddu gi euh, laaj bi lay njëkk a laaj mooy sëy dafa am nu ko yoonu Sénégal tërale ci lu ñuy wax code de la famille am lu ñuy wax mariage civil Serigne Mbacké leer na ni ko charia tërale waaye yow nag ni ko yoonu Sénégal tërale ndax ñu bëgg koo méngale ak charia tey suñ ko doon soo ñu ko doon leeral loo looñ ci mën a leeral muy mariage civil. waaw jërëjëf laaj bu am solo la li may njëkk a wax rek mooy bi sëriñ Mbacke Abdourahmane di àddu mhm. ci kàddu mi njëkk dama ko déglu attentivement mhm. dama ko teewlu bu baax mhm. te li ma ci jële rek mooy mën naa ne daanaka à cent pour cent hmm. dafa dëppoo ak code de la famille hmm. ndax bari waa na léegi-léegi nit ñi di ci wax euh, jàpp ne wuute da cee am hmm. waaye tey bi ma ko déggee mu wax dafa mel ni code bi laa tiim donc loolu laa bëgg a leeral mooy sa laaj bi euh, xam nga réew mi ni mu tëdde am na lu ñuy wax constitution mooy sartu ndaw nda ndayu ndayu ndayu sart yi constitution bi maanaam mooy charte bu mag bi loi bu mag bi nga xam ne nii bépp loi buñ jukkiwaat ginnaaw bi wërte waroog moom daf ko war dafa war a dëppoog moom constitution boo boo ca demee également indi na fa famille ndax sa laaj bu njëkk ci moom mooy euh, solos euh, mariage tontu na ko euh, foofu famille constitution daf ko jox ay àq ak daraja ak doole te famille mënoo ko wax te waxoo sëy kon solos mariage déjà constitution bi euh, prévoir na ko aar na ko sàmm na ko ndax ni ko dugal ci biir famille te famille bu ñu ko waxee rek sëy moo fay am ak njaboot kon euh, mariage amaan na solo foofu ndax constitution gëdd bu mu ko jox waaye bu dee loi spéciale bi nga xam ne nii moom moo tënk wàllu sëy tudd nga ko léegi mooy code de la famille bi mhm. loi boobu 1972 la donc ci lañ ko voté adopté ko mu yor wàllu sëy ak daanaka famille njaboot de façon large mm-hmm. li ñu li ñu ñor tey nag muy mariage te code de la famille boobu prévoir ko ni nga ko waxee léegi ma junj ko ci dëppoo gi mu dëppoo ak damay tàmbalee fii sëñ Mbàkke tàmbalee mooy wàllu sexe bi. Mm-hmm. Euh, code de la famille dafa wax ni mariage mënuñ ko concevoir maanaam mënuñ ko def ci lu dul diggante góor ak jigéen. foog mu leer mm-hmm. le mariage ne peut pas se concevoir qu'entre un homme et une femme mm-hmm. fii ñu waxee tey li ñuy wax droit positif maanaam loi yi ñuy àttewoo ci réew mi mu nekk en vigueur te kenn soppeeku ko mm-hmm. muy code de la famille bi ñuy wax bu 1972 kenn du ci gis góor ak góor gu ñuy maye wala jigéen ak jigéen ju ñuy maye loolu dama ci insister donc li mu wax dafa leer ab sëy daal mënut a am ci li dul diggante góor ak jigéen loolu foog mu leer bi ci toppaat ci indi na ci wàllu âge loolu xëy na sëñ Mbàkke mën naa am dina ci am leeral waaye code de la moom indi na ci âge bi maanaam wàllu at yi nee na bu dee góor gi dafa war a am fukki at ak juróom-ñett ndax suñu majorité maanaam li ñax wax majeur maanaam euh, ci wolof mooy ku majeur mooy mat mu kàllaf mooy mu mm-hmm. mu ngoog donc 18 ans lañ ko fixé. Mhm. léegi góor gi loolu war am. Mhm. jigéen gi nag ñu ne 16 la am la war a am fukki at ak juróom-benn. waaye foofu am na exception. Mhm. nee nañ mën na koo yées maanaam mën naa nekk mineur. kon tënkuwuñ góor gi jigéen ji ci 16 yi. ay principe yu ñu dégagé góor gi moom mooy am 18 jigéen ji am 16 ans waaye mën na koo yées nag. bu ko yéesee nag faw kooku ay kilifaam taxaw ci ndax mineur la. ba ci wàllu loi mineur moom mënul taxaw ci tribunal mënul jëflante mënul jënd mënul jaay faw ki ko yilif di ko defal di ko waxal bu ñu jógee ci wàllu âge bi euh, sëñ Abdou Mbacke na ko léegi euh, jigéen joo xam dafa dafa jógee ci ab ab sëy tas kooku également trois cent jours maanaam ñetti weer fa mu jàpp ñetti weer yi ba mu leer ba jeex mu door a wax waxu sëy ndax dañuy bañ li ñëpp xam doom am ci diggante bi duñ xam ku njëkk ke la wala ku mujj ki la foofu également it yaakaar naa dañ ci dëppoo dine am na lu ñuy wax consentement maanaam ñaar ñi ñu wa ñi ñuy maye dañuy dañuy bëgg duñ leen forcer maanaam ñu joxe seen consentement seen accord même bu dee mineur manees na ko laaj wala ay kilifaam joxe ko waaye daal lu lu ci mën a am moo xam ñoom ñaar ñi maye joxe wala seen i kilifa joxe seen consentement maanaam d'accord nañ ni bëggante nañ dañoo bëgg a sëy loolu également euh, yoon dafay bañ ko forcer nit ki ndax conséquence yi muy jur après moo tax euh, loolu kon buñ ko buñ buñ ko tënkee mooy li wax léegi góor ak jigéen la loi nangu ñu sëy loi nanguwul ñaari góor takkante wala ñaari jigéen takkante góor ak jigéen ñoo mën a sëy ci réew mi ci loi yi fi mu toll tembe ba ca topp it ci wàllu âge bi wax naa ko 18 ans pour góor jigéen 16 ans waaye mën na koo yées ci ndigali kilifaam nañu d'accord ñoom ñaar sëy muy consentement seeni kilifa it mën nañoo mën nañoo joxe consentement am na lu ñuy wax prohibition maanaam lu ñu lu ñu tere sëñ bi wax na ko léegi mooy yenn jege jegeante ci ak mbokk lim na ko du ma ci dellusiwaat dañ koy aaye loolu it code de la famille daf ko prévoir bu ñu ñëwee ci sëy bi en tant que tel wax naa ko léegi kon d'accord gi moom munu cee ñàkk can gi condition de validité la maanaam lu mënta ñàkk ci sëy bi la bu ci amut du jàkk bu baax ba ca topp également seede yi mu wax léegi foofu également it daf ci mënta ñàkk bu amut du baax am na lu ñuy wax publicité wax na ko léegi mooy mhm. siiwal gi mhm. loolu it ñun dañ ko loi daf ko daf ko jox doole faw ñu ñu siiwal que ni diw ak diw borom kër lañ ak soxna ngir keneen ku mën a waroon a bëggoon a bëgg wala bëgg a def leneen bu dee ku juwa mu mu dem toog te wuti leneen loolu it ci condition yi la bokk euh, bu dee nag euh, forma yi ñuy wax forme maanaam ci wàllu kayit wi lii su amee sëñ bi wax na ko léegi mën naa amee ci kër mhm. mën naa amee ci jàkka mhm. mën naa amee ci barab bu nekk léegi nag su xasee am ah nit ki mën na ne aw këyit laa bëgg mhm. léegi këyit woowu nag yoon dafa wax ni buñ takkee sëy bi may nañ nit ki juróom benn weer maanaam bis biñ ko takkee am na juróom benn weer pour dem ca état civil ba maanaam ca commune ba commune boo gis wala mairie boo gis am na service état civil. Mhm. état civil pour tënk ko rapidement rek mooy lépp loo xamante ne nii euh, dana tax ñu mën a ràññale doomu aadama bi ci biir askan yu mbokk mhm. tur sant turu ndey turu baay sëy bi mu takkante ak bu faatoo lépp daal information boo xam ne nii dana tax bu ñu ne diw rek ñu xam ne duñ ko jaawale diw. Mhm. léegi nag ci biir état civil boobu nag dafa am ñetti pàcc. ndax doomu aadama bu amee li ko gënal gannaaw bu yàlla dogalee mu juddu lu ñuy wax naissance ah bu ko dara jotul te yàlla tudd ko te man ko dana takk jabar muy mariage a ah, li ci des moom ñëpp xam nañ suñu borom bind na ko te du du dañ mukk faatu muy dese kon ñetti pàcc yooyu ñoo yor état civil naissance mariage décès tey nag mariage bi la ñuy waxtaane kon léegi ci biir juróom benn weer yooyu ñu takk sëy bi mën naa dem ci maire yi bi mu bokk bu demee ci maire bi mu bokk nag moom ku góor ki day dem yóbbaale carte d'identité wala pièce boo xam danañ ko mën a identifier moo xam passeport la waaye carte d'identité daal lañ gën a taamu waaye passeport nag am na information yi am ci carte d'identité lépp lu koy mën a identifier daal na ko yóbbu rawatina carte d'identité nationale bi soxna si également ànd ak moom yor pièce am carte d'identité moom it wax nañ ko léegi témoins yi ñu tuddoon ci jàkka ji wala ci jumaa ji wala ci kër ga bu dee ci wàllu loi góor gi day indi ñaari seede jigéen ji indi ñaari seede donc foofu moom lim nañ seede yi ni ñu toll xaw ma ci wàllu diine waaye bu dee ci wàllu loi bi code de la famille góor gi dina ànd ak ñaari témoin jigéen ñi ànd ak ñaari témoin ku ci nekk it yor sa quarante bu ñëwee it imaam wax na ko léegi ni nga xam ne nii ni la ilimaan bi war a gëstoo ki nekk ci état bi buy officier bi moom it yoon may na ko mu poser ay question laaj seede yi ndax ñoo ko fekke woon fan lañ ko takki nu mu demee ndax it nit ki booy bind dara wala nga di ko def war na la leer kon enquête boobu imam bi di def it officier état civil bi war na ko def ndax bu xasee takk sëy bi wala bu tax bu xasee dëggal sëy ba ñu takkoon ca jàkka ja ngir def ko ci këyit wala wala bañ def ci kër gi ngir def ko ci këyit moom mooy signé mooy def cachet ëllëg kon lu ci am bu dee ab fóola woon wala dara moom la ñuy njëkk a woo ne ko yokkat yaa defoon sa tampon fi yaa defoon lii yaa defoon lii yaa signé mm-hmm. kon loolu également bokk na ci loolu léegi nag bu juróom benni weer yi weesoo nit ki maanaam xëy na am xat wala jafe-jafe jamono wala gàllankoor ba juróom benn weer yi weesu kooku dama koy dama ciy profité waxaale ko ci émission bi benn officier état civil benn nag amatul compétence oh. amatul maqaama oh. ñu ñëw directement rek mu defal leen ko oh, ndax délai déclaration normale bi dafa weesu juróom benn weer lañ may nit ki bu takkee ab sëy ci jàkka wala ci këram ci biir juróom-benn weer yi mu waaxu dem ci mairie bi wuti ci këyit bu rombee juróom-benn weer yi officier bi sëñ bi wax na ko léegi nit ki mën na bañ a xam. bu ñëwee ci yow na la dama bëggoon kat nga bind nga nga bind ko ci këyit damay déclarer sama sëy nga ne ko demal ci président tribunal bi bu boobaa jugement la mën a doon maanaam léegi officier bi du ko mën a jël directement day dañuy ñëw tribunal bu ñëwee tribunal def fa demande. attekat bi ci boppam président tribunal wala juge bi nga xam ne nii moo fa nekk topp ci moom comme ci mën a doon rek muy magistrat ba fay ate moom mooy dem audience atte ne sëy boobu nga xam ne nii waroon nañ ko déclarer ci këyit ci juróom benn weer yi te weesu na tey joxe naa ndigal moom jugement bi muy def ndigal lay doon jugement d'autorisation d'inscription la maanaam juge bi lay naan jox naa ndigal officier sangam mu mu am léegi darajay bind wala mu déclarer ci kayit mm. sëy bi ñu fàtte woon def ci juróom benn weer yi mm. kon àttekat bi euh, mën nañ ne takkul sëy mën nañ ko waxee noonu parce que day joxe ndigal dana def lu ñuy wax mariage bi ci kayit waaye mm. ndigal la léegi nag jëkkër ji wala jabar ji ñoom ñaar ku ci nekk yoon may na la nga ñëw jël si kayit wa ci àttekat bi dem ca mairie ba ne ko léegi nag jot nga ndigal léegi nag sañ nga maa defal attestation bi wala certificat de mariage bi ndigal laa ngi nii. Mhm. léegi nag officier bi jugement boobu nga xam ne nii moom la président tribunal wala juge bi joxe information yëpp da cay am ndax borom jëkkër ji ak jabar ji bu ñuy déposé seen demande bi dañuy indaale seen carte yi ak seede yi yi fekke woon ñu xam kañ lañ ko takkoon ban jàkka woon can li nu mu tolloon ñoom nuñ tudd nuñ sant seen date de lépp da cay am. Mhm. kon këyitu àttekat bi buy ñëw ci mairie bi ci officier bi lépp da ciy nekk. officier d'état civil la kon la def mooy day jël jugement président bi rek wala juge ba daal di jël registre am daal di recopier amul lum ci yokk amul lum ci wàññi ndax lépp nekk na ca kon loolu laa doon xaw a euh, yokkaat ci bu ñu jugee ci euh, mariage bi léegi nag be ma njëkk a wax nii mooy li ñuy wax mariage constaté maanaam loo xam dañ ko takk ba noppi ci jàkka wala ci kër imaam def ko ñu indi ko ci maire yi wala tribunal pour am kayit bi léegi nag suñu luwaay réew maye na lu ñuy wax célébration de mariage may na officier état civil ci boppam moom takk sëy officier état civil yoon may na ko mu célébrer maanaam mu takk sëy comme ni ko imaam di takke ndax sëñ Mbàkke wax na ko léegi xëy na aay yi ñuy jàng yooyu yëpp barkeeloo ko ngir barke la waaye li nga xam ne mooy takkub sëy maanaam koo xam ne nii eh, am nga xam-xam bi am lañ ca laaj lépp mën na ko def bu amee condition ya mooy can gi seede yi ñaar ñi war a def consentement wala seede kilifa joxante ko ñi ko war a seede seede ko moo tax loi de également eh, jox maqaam maqaama officier état civil mu takk sëy bu fekkee nit ñi bëgg nañ ko waaye buñ ñu suñu réew nag li ci ëpp moom da ngay takk ci jàkka ba noppi yóbbu ca mairie ba ñu defal la waaye comme neex mën nga dem directement ci mairie ànd ak ñi nga war a àndal fekk fa officier bi mu takkal la sëy comme ni koy niñ ko mën a defee ci kër wala ci beneen barab euh, kon daal ci ci ci gàttal pour l'instant mhm. loolu laa amoon ci lu may leeral mhm. di xaar xaar yeneen euh, question ak yeneen ok macha allah macha allah président exposé bi am na solo waaye seetlu bi ci ñëpp seetlu rek mhm. mooy ni nga ko waxee mooy dafa mel ne euh, sorewul sorewul lool ak bi sëriñ Mbacke Abdourahmane def ci wàllu sharia yu ci baree bari dañoo dañ cee dëppoo euh, xam naa euh, nga joxal ma sëñ Mbacke rek ndax am na loo junju ci biir ma bëgg moom itam mu àddu ci muy ci wàllu aas bi muy wàllu at yi ci chariatul islamiya imam sëñ Mbacke yan at la góor ki war a am ñu doog koo mën a takkal soxna fasal ko sëy waaye ku jigéen kat yan at ci lañ ko war a mën a dugal ci néegub sëy waaw xam nga bu dee ci lislaam moom tënkut ab sëy ci at hmm. ci man-man la koy tënk ak ñàkk loru koo xam daal buñ ko mayee fi ni ni mu loru wari hmm. su ko mayee loolu nag xëy na mën naa mooy cëslaay ñu ñu ay âge hmm. waaye bu dee ci lislaam moom waxut ne wala ñoo may nit ki na àgg ci âge sàngam bu dee góor wala jigéen mhm. waaye daal na doon koo xam ne mhm. bu dee eh, li mu waxoon ci bi ne ku ci man baa mhm. mooy kon ki nga xam ne nii jekk na ngir yor soxna eh, ak jigéen ji nga xam ne jekk na ngir sëy ñooñu lislaam du leen tënk ci at xëy na tënk gi nag léeg-léeg du wañ dara it nag ndax boo ko seetloo maslaha la ndax ñu ñëpp dañuy xam ne léeg-léeg eh, gis koo xam ne boo ko mayee yenn may teel yi hmm. la taxoon ñu di ko maye du ko mën hmm. gis góor goo xam ne bu teel a takk soxna it ma tëggul boroom kër hmm. foofu nag xëy na li ñu wute mooy ne bu dee ci sare moom duñu wax ne daf ko araam na yoon nag sañ na ko tere ngir maslaha mel noonu léegi yoon sañ naa tere ni diw ko aggut sànga mu takk soxna ngir maslaha boobaa dañeen ci war a topp ndax gis nañ ne jublu wut a xatal jublu wu ñu lor nit ñi waaye dañuy bëgg kii denc àgg ci âge boo xam ne xëy na dana mën a téye soxna si yor ko dem ko jigéen jiit liñ ko dee bu diggee dana ko man waaye bu bu buñ ci lislaam nag buñ maye woon ñoo xam ne agguñ aso lislaam day jàpp ne sëy bu normal mhm. xëy na foofu mën naa am wuute ci am waaye day jàpp ne bu normal la moom mhm. Mhm. jërëjëf kon loolu leer na euh, président euh, ma dellu siwaat ci yow tudd nga léegi bi nga exposé ba pare ci wàllu état civil maanaam officier d' état civil fi kàttanam yam ci wàllu mariage mooy sañ naa célébrer mariage sañ naa itam ñaar ñu takkante ba noppi ci jàkka wala wala wala ci kër àndandoo ñëw ngir bëgg këyit wuy firndeel ne diw mii ak diw ay way dencante lañ waaye nag dafa am délai bu ñuy wax six mois juróom benn weer bu ko xasee weesu jugement lay dem jugement lay dem euh, jugement boobu nag ci lañ bëgg a waxtaan ndax dafa mel ne Euh, am na ay jéego yuñ doxoon diggante daaw jéeg baren ci wàllu yombal loolu ngir ñu bañ a àgg ci jugement bi ndax loolu tam nag bari na ay jafe-jafe yu mu indi ci ci ci ci dëkk bi xam naa di ci ñëw ba tax ñu doxoon ànd ko ak yow ci wut li ñuy wax attestation de mariage muy këyit woo xam ne léegi dañuy bëgg jàkka ji muy jumaay Tuuba sëy yiñ fi fase mu am këyit wu koy firndeel woo xam ne information yi nga laaj yépp dana ca nekk imaam bi takk sëy bi dana ca ne dana ko signe dana wax turam ki ñu may soxna dana ca nekk ak ay ay ay ay filiation soxna si ñuy may itam dana ca nekk ak filiation waaye seede yi itam danañ ca nekk ci biir këyit woowu nga xam ne këyit woowu dana mën a wuutu lu bari loo xam ne mënoon naa am ginnaaw bu ñu bu ñu fasee sëy bi kon loolu ci lañ bëgg a ñëw leeral ko leeral leeral leeral attestation de mariage boobu jéego yi nga xam ne moom lañ ci dox ak gan yombal nga bëgg seetlu jafe-jafe yoo seetlu ba tax nga bëgg yombal attestation bii ngir nit ñi mën cee joti waaw jërëjëf euh, comme ni nga ko waxee rek euh, liggéey boobu daanaka at ñaari at yi yëpp euh, daan nañ ko def ak daayira Muxaddamatul Xidma ak imam yi ci nekk yëpp muy liggéey bo rafet ndax boo xoolee réew mi daanaka léegi région yëpp wala département yëpp lu ci ëpp dem nañ ba léegi jàkka joo dugg wala jumaa joo dugg rek buñ fa takkee sëy imam ba fa nekk def fa benn attestation de mariage religieux maanaam boo xam ne nii ci sariha lay tënku te comme niñ ko waxee léegi daanaka wuute bi néew na wala wala bëriwut euh, léegi nag euh, li nga xam ne ni danaa ko ci leeral tey ndax dañ ma ci interpellé. lu mm. baree baree bari. dafa am ñu ne léeg-léeg ñu dem maire yóbbu kayit wi mm-hmm. ñu laaj leen seede yi mm-hmm. pour ñu ñëwaat ak euh, borom kër bi ak soxna si mm-hmm. loolu nag bi ñu ma ko waxee euh, tey occasion euh, également ma ma ma leeral ko réew mi dafa tënku ci loi wax naa ko léegi loi bi 1972 la ci biir loi boobu nag ba tey amagul benn pàcc bu ñu jagleel imam bi maanaam kayitu imam kayitu moski loolu foog ma leeral ko mu leer euh, maa ngi fàttaliku war na mat ñaari at ci ginnaaw amoon na benn séminaire boo xam ne ni ministère de la justice mi ngi ko doon def ci gox-goxaan yi man bi nekkoon Kaolack ca la participer am na ñu nekkoon Dakar Saint-Louis Euh, bëggoon a soppi lu toll ci quatre-vingt-six articles daanaka juróom-ñett fukk ak juróom benn wala lu ko ëpp ci code de la bi yooyu coppite nag bokkoon na ci comme réew mi dem na ba jàkka yeeg jumaa yi yëpp presque li ci ëpp dañuy def ay attestation de moske ñu bëgg nag xool ban gëdd lañ war a jox attestation bi imam bi def pour mën ko dugal ci acte juridique yi maanaam mm-hmm. këyit yi nga xam ne nii mm-hmm. day am yenn daraja yi ak yenn maqaama yi ba boo ko wanee mm-hmm. ñu xam ne kayit yi ka daraja jii la am wala maqaam bi mii la am mm-hmm. war nañ koo teg place bi war nañ ko war war nañ koo teg place bale loola liggéey la boo xam ne nii ñaari at yi weesu ñu ngi ci nekkoon waaye tënkoo gut mm-hmm. kon bu xasee tënku rek loolu dana dem ba leer nga xam ne kenn dootu ci nekk di laam-laamee bu boobaa danañ xam ndax euh, ba ci lislaam dafa fonk firnde preuve preuve firnde loi bi it noonu la mel firnde yi nag bi ci jiitu mooy écrit lu ñu bind lu ñu xaatim léegi nag ci biir xaatim googu comme imaam day bind day xaatim te ñëpp xam nañ position ci société bi ak tolluwaayam ak yaakaar gi nit ñi am ci moom ak kóolute gi moo tax nañ ñu dem ba ñu yor wàllu loi commencé xalaat ne faw ñu jox kayitu imaam bi daraja boo xam ne nii danañ xam yaan conséquences juridiques maanaam buñ ko tegee ci ci ci service wala ci institution wu addina bi wala place fu ñu ko mën a wane rek. ñu ñu ne ah gëdd sàngam la am. loola nag moo exécute waaye ñu ngi ci liggéey bi. Mhm. kon bu yàlla dogalee liggéey boobu sotti. Mhm. ba ñu yeesalaat kot bi ndax code bi 72 la. Mhm. daanaka euh, xaw na fee mag ñu baree bari. loolu tey jot na liggéey boobu ñëw ba yeesaat. te bu yeesee nag bu boobaa danañ xam valeur juridique bi nga xam ne ni danañ ko jox kayitu imam bi waaye fii ñuy waxee fi loi bi toll tey tembe ak waxtu yu ñu toll tembe ci biir code de la famille bi boo ko xoolee euh, attestation de mosquée bi maanaam doo ko ci gis te it comme gisoo ko ci munoo munoo munoo kon wax ban daraja lañ koy jox léegi nag ñun ci suñu wàllu xam-xamu droit bi nu jàng daraja bi nga xam ne ni tey buñ ko doon dugal ci firnde yi maanaam firnde yi nga xam ne ni moom la yoon di di laaj lu mel ni bind écrit seede mhm. témoin mhm. classification boobu mhm. maanaam ñun dañ koy dañ koy dugal ci li ñuy wax commencement de preuve maanaam ab tàmbali maanaam firnde la waaye foog ñu mottali ko loolu la ñuy woowee commencement de preuve lii kat firnde la waaye danañ ko mottali moo tax kon révision boobu may wax ci code de la famille bi am solo ndax suñ demee ba ba ba ba jox ko daraja ak gëdd dootuñu laam-laamee ban façon firnde la mhm. ndax jar na mottali wala jarul mottali léegi nag comme loi bi nag waxagu ci dara te mhm. révision boobu egsegut matagut mhm. fii ñu toll tembe kon commencement de preuve lañ ko mën a wax maanaam firnde boo xam ne nii day laaj mottali moo waral kon ba tey suñu yóbboo attestation de mosquée yi maire yi officier bi laajaat seede yi foog kon nit ñi comprendre population bi comprendre ne Mm. loi bi moom moo imparfait moo matagut te ñàkk mat googu ñi ngi koy jéem a réviser di ko yeesal bëgg mottali liñ xalaat ne moo ci manqué ndax sëñ bi wax na ko léegi loi boo gis ci société lay àndal ni ñu évoluer nu société bi doxee rek loi bi dana jéem a màgg ba toll seen esprit ak seen comportement kon kilifa yi réew mi bi ñu xoolee ne jàkka yi ak ak mosquée yi ñu ngi ñoom ñëpp ñu ngi góor góorlu dem ba xam ne kayitu imam yi mënatul ñàkk te ñëpp a ngi koy def. Mhm. ñu ne ah kon nag nañu fexe ba yeesal code bi dugal ci kayitu imaam yi jox ko gëdd bu ñëpp xam ba fuñ ko teg ñu xam ban place lañ ko war a jox. loolu nag comme exegul mhm. te li ñu mën a woo pour l'instant nii nii tembe mooy li fi nekk. li fi nekk mook mooy bu ñu indee kayitu imaam bi faaw ñu indi ñaari seede yi léegi nag door a matale. Mhm. donc loolu mooy commencement de preuve. mooy firnde goo xam ne nii danay wut lu ko mottali. nga xam ne daal ñaari seede yi mënuñoo ñàkk ñëw. fi mu yóbbu attestation bi faaw nga yóbbaale. ñaari seede attestation bi waaw fii daal ci droit positif bi. fii fii loi yu toll. te yeesal bee exégut. faaw ku ci yóbbu attestation de mosquée. te mairie ba. faaw da nga yóbbaale ñaari seede. Euh, alhamdulilah nag imaam wax na ko léegi. xam nga ci biir attestation bi prévoir nañ ci. témoins yi xam seen i tur. ñooña kon mhm. danañ yomba identifier yomba àndal ñu dem mhm. léegi nag li ñu war a xëy na euh, soññee rek mhm. mooy révision bi gaaw ñu doxal ko eggale ko ba gëdd bi nga xamante ne nii bëgg nañ ko jox kayitu imaam yi mu egg ba xëy na seede yooyu dootu ci dootu ko jar ndax toutes les information day nekk ci kayit bi wax nañ ko léegi bu dee ñun kayit bi ñu def ci jumaay Tuubaa ji tey wax dëgg yàlla turu imaam beeg jàkka ji ko def cachet bi témoins yi mhm. même waajur yi nga xam ne ñoo ñoo teewal ñoo mhm. ñaan ñoo maye mhm. seede yi can gi lépp da cee nekk numéro quarante yi lépp nekk ci signature yi nekk ci cachet bi nekk ci kon amatul benn information bu manqué kon kayit woowu war naa mën a wóotu ay seede rawatina seede yi ci boppam ñoom ñu ngi ci biir waaye nag comme li ñu wax rek loi bi ci lañ tënku pour l'instant ab république la mi ngi dox am ay loi loi bi ay nit ñoo ko defoon nit ñooñu ko defoon dem nañ ba xam ne weras na ko soppi mhm. ndax mbirum nit moom mhm. day soppe day soppar te mhm. woon na koy soppi gis nañ it ba léegi imaam yëpp ñu ngi def ay attestation ah autorité yi ñu ngi ci xalaat te man li ma wax léegi bokk naa ci séminaire boo xam ne nii ñu ngi ci doon gëstu te man bu fi jógee dina bind samay kilifa xamal leen nit loolu it ñu ngi koy xaar rawatina Touba ak feneen ak feneen loolu incha allahu rabbi Eh, te buñ amaatee occasion it amaat ndaje ak ñoom danaa ko gën a yeesal ci ñoom xamal leen daal Touba moom mi ngi xaar lu mel noonu ndax depuis lors deux ans jaar na fi ñaari at yoo xam ne ni xëy na Covid bi fi jaaroon moo waroon ndaje yu bari ñu di ko daw xëy na moo tax lu bari ralentiru donc loolu laa mënoon wax ci attestation euh, imam yi waaw euh, président euh, laaj bi ma bëgg a dugal foofu mhm. mooy léegi xam nañ ne sëy bi moom mën naa fasu fii ci charia ci jàkka ji mhm. moom ñu ne sëy bi fasu na mhm. waaye nag bu dee ci code de la famille mhm. sëy bi ndax bu amut certificat de mariage mën nañoo jàpp ne ëpp sëy bu fasu la ak ñàkk googu mu koy ñàkk am yan conséquence la mën a jural euh, ki ki nga xam ne mooy moo moo mooy way ñooy way dencente yi waaw loolu loolu it yàgg nañ koo laaj te it euh, dañ ci sawar tontu euh, code de la famille dafa wax ne le mariage ki n'a pas été constaté valable <laughs> loolu ay waxam la mooy même suñ ko deful ci këyit ca civil ba ca ca ba mariage bu fasu la bu valable la loolu mooy principe bi léegi nag état wala loi day bëgg a ñaax nit ki pour muy xaatim wax naa ko léegi l'islam ci boppam dafa bëgg firnde rawatina luñ bind ba ci bor rek l'islam day bëgg ñu bind ko kon bind boobu loi nag ak day bëgg a day bëgg a euh, soññ nit ñi pour ñu ñu bañ ci ay wax dem xaatim ko ngir ëllëg dañ koy soxla moo tax mu tekke ni léegi nag su fekkee yow da nga takk sab sëy te amoo ci benn firnde bindoo ko fenn boo amee jafe-jafe wala ñu la wala wala ci institution yi lu mel ni ministère des finance wala ci tribunal wala fu mu mën a doon ku mel ni fonctionnaire tey ji fonctionnaire boo xam ne nii da am soxna ah yàlla dogal ñu war a dagg ay impôt léegi yow bu fekkee war war nga ne war war nga ne damaa am soxna rawatina yi nga yor en charge say njaboot loolu boo ko dugalee certificat de mariage boobu yoon wane ne yow am nga soxna koo xam yaa ko yor dana am lu mu wàññi sa impôt lu mu ca comp wàññil la pour mu woyof ndax njaboot gi nga yor ndax njaboot dafa diis moo tax nag loi daal ne bu fekkee def nga am sëy boo xam ne nii moo xam ci jàkka wala kër fu mu mën a doon valable na d'accord nañ ko nangu nañ ko waaye nag boo ko bindul ci kayit mënoo koo jooytu mhm. ci kanamu institution yi mhm, mhm. ndax boo ñëwee tey ne di sama soxna te amoo këyit duñ la mën a gëm ndax nag administration formalité ci lay dox ci këyit lay dox moo tax nag yoon bëgg a soññ nit ñi bëgg a xiir nit ñi ci ñu koy xaatim ci këyit ngir di ko présenté ndax il faut une preuve matérielle c'est-à-dire foog nga am firnde ju ñuy làmb ndax tey jii ñëpp xam nañ ne fi jamono toll am na ñu ñuy wax ay escroc yoo xam ne ni ay njublankat dañuy xëy ñëw ni ànd ak soxna ni kii kat sama soxna la hmm. damaa bëggoon ah ñu jël ko en compte pour sama nangam wàññeeku hmm. fekk du soxnaam hmm. moo tax état di di ci bind bo donc pour tënk li nga wax ñaar yooyu lañ ci mën a jàpp mooy buñ ko deful ci këyit valable na waaye nag boo soxlaa ci wàllu état pour sa mariage jariñ la fa dara faw nga def ko ci këyit ndax état këyit la xam administration këyit la xam waaw conséquence yooyu moom bari ci Euh, ci ci ci ci lu muy daal ci nit ñi ñoo xamante ni duñ ci am soxla waaye dañ dem ba jamono dab leen ñu war cee am soxla nag bu boobaa nag mu indi jafe-jafe surtout nag ci wàllu miraas yeeg yooyu xam naa dinañ ci dinañ ci dinañ ci dellusiwaat incha allahu taala am am am benn laaj nag bu ma bëggoon laaj nag hmm. mooy maanaam ci bi ñu baree bari ci ñun suñu kii yi suñu xeet yi dañuy ragal ragal li ñuy wax certificat de mariage boo ko tuddee rek ñu ne waaw certificat de mariage loolu wóorut ndax lii nangam nangam léegi nag foofu certificat de mariage ci biir dafa am lu ñuy wax option maanaam li nit ki tànn tànn polygamie mooy damay am ñeenti soxna ni ko charia santaane am koo xam ne day tànn monogamie maanaam day tànn ne man kat benn bii ci laay yam ndax loolu ak certificat de mariage bi ban rapport lañ am. waaw loolu question bu nit ñi di laaj la te comme ni nga ko waxee jataay xam-xam la ak leeral tey. Mm-hmm. kon danañ ci eh, indi ay leeral suñu kem kàttan incha allahu rabbi léegi euh, euh, certificat de mariage boobu option bi ci biir la nekk maanaam ci biir la nekk tey jii booy booy booy booy booy dem di déclarer sa mariage tey jii ñu ñu ñu ñu takk sëy ci jàkka ji wala ci jumaay Tuubaa ji tey nga yor sa kayitu attestation de mosquée bi la imam bi jox ànd ak say seede dem ba egg faw danañ la laaj ndax bu fekkee imaam wax na ko léegi ci Maalik la hmm. kooku yaakaar naa ñeent la hmm. bi ngay def ci jàkka ji kenn tuddul woon dara kenn laajul woon dara hmm. boo ñëwee officier bi dana laaj ne la yow ñaata soxna nga bëgg am na benn réunion bu ñu ma ko laajoon fii ma tontu leen ne leen leeral li nga xam ne ni moom laa jàng te it booy wax di ñu lay wooyee boroom xam-xam te yàlla rek a xam dangay ngay wax it la nga xam ci maanu looy réew mi daal maye na nga jóge ci ñeent di wàññi ba dese benn waaye jóge ci benn benn moom di yéeg looy réew mi mayewu ko loolu foog mu leer kon koo xamante ne nii signé nga monogamie benn soxna benn benn boobu ngay yor te bis bu fekkee sax tàggoo nga benn boobu it booy takkaat benn ngay amaat hmm. nga xam ne benn benn bi rek ci ngay xës di boo xasee def monogamie. Mm-hmm. ma répété ko. Mm-hmm. boo xasee def monogamie. ba signé ko kooku ngay yor comme sëy na bakkan la suñ mm-hmm. borom moo xam fa muy yem bis boo xamante ni fase am na wala tàggoo am na nga war a amaat soxna li ñuy wax option irrévocable mënatoo ko dindi même boo amaatee soxna benn ngay yemaat bu dee ñaar nga yemoon it man ngaa waa dese benn waaye mënooy jéeg jëm ñett mm. bu dee ñett nga signé woon mm. man ngaa wàññi ba dese benn mm. mais mënoo yéeg jëm ñeent bu dee ñeent nag moom nga dem man ngaa wàññi ndax ñeent fa la yi fi yem léegi nag option yooyu ma wax nag bu mu ci mën a doon benn ñaar ñett ba ñeent ci këyit duñ koy bind moo tudd certificat de mariage kon du ñaari mbir yu waroo mm-hmm. wala yu bokkut mm-hmm. option bi mm-hmm. bi ngay déclarer mariage bi nga façon ci jàkka ji officier moo lay laaj nag yow comme ta yaa ngi takk soxna tey bis ni ki tey yow ñaata nga war a yor te it sëñ bi wax na ko léegi laaj bu am solo la officier yi war a laaj man naa ñëw ànd ak soxna fekk yor naa benn wala ñaar ci kër ga man kon déjà mënatuma def monogamie si yor naa kenn wala ñaar kon normalement polygamie laa war a def mhm. moo xam nag dama koy def polygamie limitée deux wala trois moo xam la ma bàyyi ci kër ga wala total kon officier bi it war naa xereñ ba kii ànd ak soxna si ñëw rek ba mu jàpp ne kii rek la ma sa yor war na koo laaj ndax am na ñoo yor moo ñoo ñaata la su ne am na ko mu bàyyi dolli ci kii moom mënatul mënatul nekk monogami parce que boo ko defalee suba yàlla tere kooka faatu a ah, ñu ñëw war ko miraas bu kii indee certificat de mariage am ñu bindante monogami fekk xëy nag ku njëkk moom xamuloon mariage wala mus ko am mus ko toppatoo bu boobaa dañuy jàpp ne kii kenn rek la ma sa am kon officier yit it war nañ góorgóorlu comme ni ko imaam yi defee di gëstu di laaj laaj yu yu am solo yu xóot ba xam carrément ku ci nekk euh, ci lan lay xëy ci lan lay gont lu mu bàyyi këram ban situation la am bi muy ñëw fii ci man moo tax loolu également lu lu matalaaj la macha allah Euh, jërëjëf président dafa mel ne daal tey ab imam président lañ am waaye ab imam bu bu bu bu mataki euh, léegi ci wàllu miraas mi nag mhm. yan conséquence la war a am ci wàllu miraas mi yooyu itam ci ñàkk certificat de mariage bi ndax am na conséquence ci wàllu miraas waaw waaw loolu moom euh, dama ji sawar tontu ndax talaata bu jot mhm. ci Mbàkke fii mardi mhm. mooy suñu audience état civil loolaal këyitu judd ak nit ki rek dañ koy atte talaata bu jot fii bu dee wàllu succession miraas yi moom àllarba lay doon euh, may nuyu euh, au passage sama xaadi bi sëñ Mourtala Bousso mm-hmm. mu ñu koy wax Mourtala Bousso Mauritanie mm-hmm. xaadi la fa di ñu jàppale ci liggéey bi di fonctionnaire boo xam état moo ko fa indi mm-hmm. ma koy ziar bu baax euh, dama koy wax chaque jour audience bu ñu ñëwee ma ne leen ni ngeen war a déclarer naissance ku juddu noonu nga ngeen war a ñemee déclarer sëy ñemee déclaré faatu mhm. ndax ñett ñett yooyu bu ci nekk am nañ njariñ lu mu am te bala nga koo xam da nga ko soxla mhm. euh, léeg-léeg ma tooñ góor ñi mën a leen ku nanguwul ñu takkal la sëy fii ci kayit maanaam boo takkee sëy ba pare nga wuti këyit mhm. boo faatoo it des na ko def sa ginnaaw te doo ci mën dara ndax dañ fi bàyyi ay soxna ñu am ci miraas mi un huitième su mun ah, bu boobaa nga bàyyi compte bancaire xaalis bu bari ci banque bi wala ay kër yoo xam say njaboot dañ koy donn ñu war ko muter ba pare war koo jaay wala war ko dëkkee sax nag mhm. am lu ñu wax sécurité juridique mhm. parce que kër boo ko amee it mhm. war nga am këyit yu leer yu tax na ne amaa ko moom ba ëllëg kenn ko mën a foqati wala ko bëgg a foqati nga dem ci yoon teg saw këyit léegi nag ma ne njaboot googu ngay bàyyi ci seen ginnaaw sa ginnaaw boo fi jógee war nga leen xalaat ndax bu fekkee amoo mariage bi déjà bu ñu ñëwee dem banque ah sunu borom kër faatu na dañu bëggoon jël xaalis bi banque yi moom li ñuy njëkk a laaj mooy jugement d'hérédité oh, demal oh. tribunal mm-hmm. ñu defal la atte boo xam dañ cee xaatim mm-hmm. ki faatu ñaata soxna la bàyyi ak ñaata doom mm-hmm. ba noppi loolu moom suñ ko amut juge bi signé ko xaalis bi fi lay nekk kenn du ko génne te booba banque bi moo ci liggéey di ci jariñu njaboot gi toog léegi nag jugement d'hérédité boobu nag banque di laaj wala kër gi sax boo ko waree muté ëllëg wala nga bëgg koo jaay ki nga koy jaay ndax boo seetloo ñu fiy jënd kër kër dono lu ci ëpp dañ naan la ah nañ dem tribunal nga wuti héritier bi ndax man nag foog ma xam kan moo may jaay ci yéen boobu ëllëgee ma xam ne alali miraas la woon këyit waa ngi nii kii moo ko doon noon moo ma ko jaay muy ci banque bi muy ci eh, muta mutation après décès bi dañuy soxla hérédité bi hérédité boobu nag li tax mariage bi am ci solo veuve yi maanaam soxna yi nga xam ne ni seen borom kër moo faatu ñooñu cër biñ ci war a am faaw ñu jox leen ko lislaam leen ko njëkk a jox léegi nag cër pour ñu jox leen ko wax naa ko léegi administration këyit la xam écrit la xam état këyit la xam tribunal këyit la xam suñu ñëwee ah soxna si kat diw moo ko yoroon mi faatu man awma ci firnde foog ma am këyit wuy leer wuy wane ne diw moo ko yoroon loolu la ñuy wax mariage donc kooku nag soxna soosu li fekk indiwul mariage am man àttekat bi président tribunal wala juge bi sañu ma ko bind ci jugement dérété bi. Mm-hmm. ndax su ma ko ci bindee ci sama dossier awma ci firnde bu ma waree ne soxna la woon lu dul ay waxi kese lañ may wax wala ay nit ñoo xam ne nii ah man nañ maa doy man man nañ maa bañ a doy. te nag àttekat bi santuñ ko loolu liñ ko sant mooy sa dossier pièce bu ci war a nekk na ci nekk mm-hmm. ndax li ñuy wax institution yi day continuer nit ki de mën naa affectation wala mu faatu mm-hmm. euh, dossier yooyu des des tribunal ndax coow mën naa am. am na lu ñuy wax tiers opposition tey jii man chaque jour ma ko ay nit faatu nit faatu ay nit ñëw ne diw ak diw ma dem ab diir am ku ñëwaat nit man dañ maa fàtte woon doomam laa. wala dañ maa fàtte woon soxnaam la loolu la ñuy wax tiers opposition. bu boobaa dañ koy laaj moom it bu dee soxna mariage amba ba. wala bu dee doom këyitu juddoom. ñu gis ci bàyyi ji nekk ci ne fàng. donc ah. mhm. kon ci wàllu miraas ni ko laajee léegi mariage bu mënu ci nekk ndax jigéen ji nga xam ne ni sariya moo ko njëkk a jox akam loi war ko ko jox loi mënu ko ko jox ci wàllu miraas te amul mariage bi mhm. donc loolu muy benn pàcc bu am solo mhm. ci mariage yi donc moo tax ñuy wax nit ñi ne leen saasu su ne nañu dem déclarer wax naa ko waxaat naa ko bari na ñu ko ragal wax nga ko léegi dinaa ci dinaa ci ñëw ndax duñ ko ray ñu bari dañuy bañ a déclarer seen seen mariage ndax dañ naan su ma ko déclaré a ah, soxna si bu bëggee tas daf may yóbbu tribunal loolu mooy wax ji débat de bi loolu la sëñ bi wax na ko léegi wax na ko léegi te wax ju am solo la mooy ñaar mooy tas sëy boroom kër bi nga xam ne nii moo takkoon sëy bi maye baatam wala bu fekkee dem nañ ba nga xam ne nii loolu munta nekk bu munta nekk yoon nag mooy tas te nag information laay joxe tey boo xam ne nii foog nit ñi xam ko bari na ñoo xam ne nii dañuy ñëw tribunal ne ah man kat dañ ma fi woo te man sama sëy tribunal takk ko woon wax naa léegi ne tribunal takkul sëy dañuy joxe ndigal rek pour officier bi euh, déclarer mariage ba léegi nag woo nañ ma sama jabar moo ma plainte ne dafa bëgg a tas man nag takk ma fi woon sëy bi kon du ma ko fi mayee baat mmh. léeg-léeg nit tontu ko mmh. fekk ñun defar nañ mariage parce que am nañ carte d'identité ak lépp léeg mu laaj ma ne ma mariage bi nga defar foo ko teg man sama ton da ciy gàtt. Mhm. li ma koy laaj ma nit mooy ndax yow kii sa soxna la rek loolu rek laa soxla. mu ne ma waaw ma ne ko kon xam nga ne fenu ma kon li ma xaatim ci kayit bi dëgg la. Mhm. kon nu ma def ba def ko loolu amul njariñ. Mhm. dëgg gi rek moo amoon njariñ dëggal nga ne soxna kon mariage bi baax na. am na ñoo xam également. Euh, dañ koy ragal ci lu mel noonu mooy xam nga calcul. Uh-huh. a ah, kii kat ma yor léeg-léeg ma tooñe ko sama mbokk moodu moodu yi dañuy yor soxna yàggul dara dal na ma dem eh, di liggéey ba war a retraité def vingt ans wala vingt cinq ñëw ne a ah, dama waaj a retraité léegi indi soxna si ne nañ ma takkal sëy bi ndax tubaab bi dañ ma koy laaj ma ne ko yow lu tax ba nga ko takkee ñaar fukki at ak juróom uh-huh. wutoo woon kayit yi mu ne ah dama mañ diggante bi ah xam nga rek mën naa tàggoog man wala dara ma ne ko tàggoo suñ borom a ko yor nit ki mënta calculer liy ñëw suba ak ginnaaw suba nit da ngay gëm yàlla wala nga weddi ko waaye lii xew suba suñ boroom rek a ko xam nit nag li la yoon may da nga koy def lay xew suba yàllaa ko xam am na sëy yoo xam ne nii binduñu ko fenn te amul ñetti weer tas am na sëy yuñ bind am mariage de musta tas loolu mbiru suñ boroom la man saa suñ loolu laal tontu pour revenir ci question bi mhm. mooy mariage bi dafa am solo si ci succession bi mhm. parce que veuve bi un huitième am mhm. pour mu jot ko ci tribunal bi foog mu indi kayitu mariage am loolu mënut a ñàkk hmm. waaw dafa mel ne euh, imaam sëñ Mbàkke bëgg na àddu foofu euh, bëgg na àddu foofu ci wàllu ndono yi jërëjëf euh, président wax dëgg yàlla leer yi am na solo lool lool sax nag lu mat a xëy na lenn laa ci bëgg dool rek mooy am na ñuy ragal mariage ngir leneen mooy jàpp ne ni ñuy miraase ci tribunal dëppoo wut ak foofu jàpp naa ne ku fuy dem wuti kenn du kenn du la ci forcé masal ni ki mën naa lijjanti kayit yi ba jot ci alal ji dem ca kër ga imaam ñëw miraas ko tribunal terewul loolu kon kon jàpp naa ne ñuy ragal jàpp ne buñ demee eh, dañ koy miraase nu dëppoo wut ak charia te ñoom dañoo bëgg a tënk ci charia tribunal it yaakaar naa forcé wut kenn ci ne faaw maa mhm. fa yóbbu say dossier mhm. ñu miraasal waaye boo boo demee toog sa kër ne ma ko def ni ko lislaam santaane mhm. waaye li mu ne kayit yi mën a génn bu dee kër yu ñu yu ñu war a jële ci moomeel yëpp ci genn moomeel kayit bee tax mën a nekk kon kooku soxla nañ ko boo noppee nag ngeen toog ni ko lislaam bëggee bu leen neexee ngeen defe ko noonu loolu jàpp naa lu ci am solo loo xam ne wax nii jërëjëf président am na solo lool li li li imaam wax. Mhm. laay préciser rek. Mhm. ci biir nuyoo bi xam nga maa ngi tudd sëñ Mourtala Bousso. Mhm. kon fokkit ma leeral ne. loi loi ab Sénégal code de la famille bi ñuy wax tey. dafa am ñaari ordre de de de maanaam ordre de succession ñaari miraas yu ci nekk. loolu fokk réew mi xam ko. laaj nañ ma ko ba tàyyi ñu bari dañ jàpp ne bu ñëwee tribunal du miraasum lislaam tey nag dinaa leeral ne code de la famille bi ñu yor. muy loi réew mi. na leen leer na ñaari miraas moo ci am bu fekkee jullit moo faatu ay mbokkam ñëw ne jullit la miraasu lislaam bi ñuy miraas ci eh, jumaa jumaay Tuubaa ji sëñ sëñ Abdourahmane di ko miraas moom la ñuy miraase ci tribunal yi yëpp rawatina Mbàkke moom am naa ñaari xaat yi yoo xam ne ni kenn ki seen mbokk la wax naa ko léegi sëñ Mourtala Bousso di ko nuyu au passage donc ñoom lay seqal miraas mi ni naan un huitième veuve bi eh, góor cërub ñaari jigéen mhm. noonu lañ koy miraase ba mu jeex takk dëppook lislaam mhm. bu dee nag ko xam du jullit mhm. ñu door a jël droit commun bi beneen ordre bi miraase ko loolu il foog ñu ràññale ko waaw ndax amoon na lëndëm lëndëm donc ñaari ordre la tey ba ci ba may bi may nekk Kolda amoon naa fa ñaari xaat yi man yàlla defal na ma feex foo ma mas a dem ci tribunal yi may jiite damay am ay xaat yi am naa sens boobu ñaareel ba it eh, man sama jëm bopp xëy na ci daara laa yaroo damay laaj di gëstu léeg-léeg maak sama xaadi yi ñu xëccoo lu bari ndax lépp xam-xam dafa yaatu donc pour tënkal leen daal ni bu dee jullit a faatu bu ñëwee ci tribunal dañ koy ate niñ koy atte ci shariha bu dee nag ko xam du jullit la am na miraas muñ ko beral moo xam ñu dul jullit ñoo ko moom loolu moom loi bi prévoir na ko waaw loolu laa bëggoon na ah, ok jërëjëf <laughs> jërëjëf président moom kay euh, ñun am nañ chance daal président euh, président tribunal bi ñu am président imam la waaw euh, <laughs> macha allah xam naa li ñu desee ci ay minutes bëriwul ndax xam nga léegi waxtu timis yu jot bëgg war a ñëw ci sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma moom itam ñoom itam ñu am ci rôle bu am solo waaye président nag bëggoon naa itam nga addu ci kii de certificat de divorce de nit ñi ni ñu wute certificat de mariage du ñu wute certificat de divorce de dañuy divorce rek daal di bàyyi noonu certificat de mariage ba di wéy dañ ci dee siwaat de loolu waaw boobu kay am naa ci cas yu bari Ah, waaw boobu boobu moom am naa ci cas yu bari bu ñu paree PV moom faaw ñu ñu wax ji ok jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno yow mi nga xam ne yaa jiite commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma am taxawaay bu mag ci kayit wi nga xam ne mooy attestation de mariage bi ngeen àndoon ko ak président doon ko dox lu mat ñaari at ci ginnaaw ba ren kayit wi nag laaj nag ay taxawaay mooy nag ay ay ay ay ay taxawaay yoo xam ne ci jumaay Tuuba niñ ko fi jëfandikoo ndax sey yi ñu fi takk ci jumaa ji rek moom la ñuy permettre ñooñu rek la ñuy permettre ñu am ko ak ndax yeneen jàkk yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ndax yaatal ngeen ko bañ mën a àgg ci ñoom maa ngi rafet lu baax teewaayu sëñ Abdul Xaadir Mbàkke moom sëñ Mahmoudan mi nga xam ne moo fi teewal yeneen imaam yi mm-hmm. euh, moom itam imaam yi dëkk bi yëpp euh, ndax loolu itam da ngeen ko yaatal ba mën a àgg ci jàkk yi ndax lii dafa am solo am na solo trop loolu ban taxawaay la ci daara Muxaddamatul Xidma am yan charte la ko wutal waaye itam ndax yaatal googu yéen koy bàyyi xel. jërëjëf macha allah jërëjëf euh, El Hadj Ablaye euh, jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane waaye jërëjëf président euh, Serigne Cheikh Niane ci waxtaan wu am solo yi. Oh. jàpp naa ne ñi ñiy topp direct yi sax doyaluñ ci waxtaan wi ngir mm. am gi solo. Mm-hmm. loolu nag moo tax daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul Serigne Afia ak secrétaire général bi Serigne Abdou Lahad Moutalib ñu waxtaanoon ak président tribunal bi ci xam lii ni mu amee solo. Mm. ak it ni ku diine laaja ak it jafe-jafe yi ci am ak njariñ li nga xam ne am na ko mm-hmm. tax lu mat ñaari at ñu convoqué woon fii mboolem ay borom xam-xam ak ay imam mm-hmm. ñi ci doon waxtaan waxtaan wu gudd wu yaatu woo xam ne jëmmi kayit bi rek mm-hmm. niñ koy tërale ñëw na fii ci jumaa ji ñu delloowaat ko commune euh, président tribunal joxe xalaatam imam yi ak borom xam yi joxe seen xalaat bañ dëppo ci ne nii la kayit yi war a mel loolu nag kon xool nañ ko ba mu dëppoo ak diine ndax fii lu ñu fi def lu nekk loolu lañ ci jiital mu doon it lu amal njariñ nit ki ci wàllu ci wàllu àddinaam mhm. loolu moo tax daayiram Xaadimatul Xidma euh, ni mu koy defee ci lépp loo xam ne euh, lu amal njariñ nit ki la ci diineem di ko jariñ mm. fii ci jumaa ji ci ndigalul sëriñ bi nag mun tax Mountakha moo ci jiitu ci lépp mm-hmm. tàmbali nañ liggéey bi ginnaaw biñ ci dëppoo ba noppi depuis mois de janvier mm-hmm. registres yi ñëw la registres yi ñëw na commune defar na ko ba indil ñu ko mm-hmm. président tribunal Euh, dëppoo na ci wax ni mu ni war a demee. Mhm. ba fii ci jumaay Touba. Mhm. depuis mois de janvier képp bépp sëy boo xam ne takk nañ ko fi. Mhm. dañ koy arrêté mu des ci registre jumaa ji waaye am kayit wi nga xam ne moom lay présenté yóbbu ko mairie jafe-jafe biñ ci amoon léegi nii. Euh, ci ñi bëri doon ko dellu loolu. leeral na ko kon këyit wi mm. wala boolagul ci mm. nga xam ne da koy joxe rek ñu defal la certificat de mariage direct mm. am na accompagnement da ngay da nga koy accompagner ak ñaari seede booy mm-hmm, mm-hmm. kon loolu kon ñi ko doon laaj jëpp leer na mm-hmm. beneen bi it léeg am ñu fi ñëw ne dañoo bëgg ñu wutal ñu kayit wi te fekk fasewuñ sëy bi foofu loolu tamit daayira bi du ko nangul kenn sëy bi imaam Serigne Afe wala Serigne Baara fase fii ci jumaa ji ñooy sañ a am këyit wi ñooy sañ a amee këyit wi fii ci jumaa fii ci jumaa ji te loolu tamit day fekk mu doon ci diir biñ ko tàmbali mhm, mhm. waaye du caaga ne sëy bu romboon diir buñ ko tàmbali lu jiitu ñuy am lii sëy buñ fi façon du ko am nga ñëw ñu bëgg ñu defal la du ko mhm. euh, waaye ñoom sëy bi ñu fas tamit lañ sañ a defal kayit wi ndax seen signature da ciy nekk seen kaas euh, da ciy nekk ñu xam ne imaam sëriñ Afee moo fas sëy bi wala imaam sëriñ euh, sëriñ Baara nii noonu lay doxe fii bu ko defee kayit wi képp koo xam ne da ngay ñëw euh, can gi suñu mbàkke wax na ko léegi. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. rubu dinaar lay doon moom la ñu xayma toujours ci ni muy war doon ci CFA. Mm-hmm. nit ki di ko joxe. bindaale nañ ko ci kayit bi. Euh, ni ki noonu tamit kayit bi amul kenn ku ci joxe dara lu dul 1000 francs 1000 francs boo ñëwee. 1000 francs nga ci joxe. kon ni mu demee fii ci jumaay Tuubaa nag. incha allah fas nañ yéene. fii ci jataay bi moom buñ fi jegee jataay bi rek lañ ñoom xaar ak président ngir information bi yaatu ci ci ci jullit yi yaatu ci nit ñi kon bépp jumaa boo xam ne soxla nga am lu mel nii danañ la jaarale ci yoon nga amee ko nii ko jumaa ju mag ji amee ñu jox la résiteur bi jox la kayit yi tegtal la fooy wute sa kaase ak sa kaase imam ak kaase bi nga xam ne moom lay gi nga xam ne léegi sëy buñ fasati danañ ko mën a arrêté Euh, kayit woowu tamit wala boole comme bii ci jumaa ji di dellu ci ci mairie. macha allah di di dellu tribunal. macha ndax ndax ku ko soxla ku ko soxlawul yëpp ngeen koy wutal wala ku ko demandé rek ndax nit mën naa ñëw di fas si ab sëy fekk soxla soxlawu ko. bu dee ci jumaa ji nag moom. ku hmm. soxla ku kayit këyit bi ku ko soxlawul sëy buñ fi fas incha allah. dañ koy arrêté moom dañ koy arrêté bu noppee nag yaa xam ba xam da ngay wuti certificat de mariage wala dara waaye lii. Hmm. ñu fàtte ne attestation mariage religieux waaw waaw mm. bépp sëy buñ fi fase rek mm. dañ koy arrêté bu soob yàlla macha allah waaw jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno xam naa ma jox kaddu gi sëñ imaam rek mu mu mu mu barkeelu ci ndax xam naa waxtu julli benn minute moo ñu desee mu nuyoo rek joxe appréciation ci waxtaan wi ak euh, ban taxawaay nag la ci imaam yi dëkk bi war a am ñu ñu war a tëj. ok bisimilah alhamdulilah jërëjëf ngeen jëf sant yàlla bu baax julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoom la ñu seqaloon jataay bi le modérateur sëñ Abdoulaye Diop sëñ imam Abdourahman sëñ Mbacke Abdourahman ak le président sëñ Cheikh di leen nuyu bu baax di rafetlu bu baax jataay bi ak li fi jib ci xam-xam bu am njariñ boo xam ne jullit ñëpp mën nañ koo jariñoo muy loo xam ne euh, ci kaddu ilimaan yi lu ñu lu ñu yàkkamti woon la mhm. ndax day njariñ loo xam ne euh, lu matale la te ni sëñ Abdourahman sëñ wàkk Abdourahman leerale sëy ni ko lislaam santaane ak président Mohamed ni mu leerale sëy ni ko. Euh, euh, euh, code de la la famille bi tënke mhm. booy xool day mel ne sart mhm. yi yëpp benn la mhm. loolu nag leeral gi lu am lu am am solo la ndax bari na ci ñoo xam ne xam wuñ ko woon noonu kon leeral gi nii waxtu wu ne day day day am njëriñ di sant bu baax ci jataay bi registre yi nga xam ne tudd nañ ko fi mooy attestation bi de mariage bi. wala boog déclaration. looloo lu nit ñi soxla la. ndax ci jàkk yu bari lu jumaa yu bari nit ñi léeg dañuy ñëw di ko di ko di ko sàkku. fekk amaguñ ci yoon wuñ mën a jaar ba mën leen ko jox. kon nag tey buñ buñ buñ bu ñu doon dox fekk ñaari at ñaari at ci gannaaw ñuy dox ba tey muy mu mu nekk nii. loolu lu ilimaan ñi di lu la bu baax a baax. jërëjëf leen sant bu baax. jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf jërëjëf kon jërëjëf mel na ne xëy na waxtu wi tënk nañu dañ bëggoon a wax lépp yaatal ko ak président xam naa dinañ dellusiwaat sax ci moom ci beneen yoon ngir bari na yu ñu war a waxtaane ci wàllu euh, naissance yeeg yeneen yu ñu demee kon euh, sant nañ bu baax a baax président ci opportunité bi nga ñu may ñëw fii ak taxawaay bi nga def ci ci attestation de mariage bi ñu ngi la ciy sant bu baax a baax jéego ñu ci def ñaari at yaa ngi ko ànd ak ñun macha allah taxawaay bi rafet na imaam sëñ Bakk Abdourahmane yow itam sant nañ bu baax a baax ci leeral yi ngi indi ci sëy bari na yu sew sew sew sew yoo xam ne tey leeral nga ko fii ñu baree bari man koo jariñoo ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant imaam sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke Mahmoudan mi fi teewal imaam yi dëkk bi ñu ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaay bi di sant sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma ti jiite commission culturelle yaakaar naa mbokk ñi doon seetaan yépp tey jëriñu nañ ci waxtaan wi njëriñ loo xamante ni macha allah jàpp nañ ne sax waxtaan wi war nañ koo wéyal ci yeneen i fànn yeneen fànn kon jërë ngeen jëf ñi ngi taxawlu foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.